wa salaamu ala sayyidina muhammadin abdihi wa rasuli eh, xanaa rek ni doyen Moustapha wax professeur yi wax li mu waxoon ne dafa am ku leen ne bëggeen di tàmbali seen wax nañ ko wax ci làkk bi nga xam ne ñu bari dégg nañ ko kon ñu ba ñu tàmbalee ci loolu buñu noppé tamit ñu may nu rek ay baat ci langue bi nga xamne mom lañuy la ci fi ci université Cheikh mohamed Bamba fofu yit liñ ci bëgg wax rek mom lañuy wax toujours lak moy li nit ki mëna joxante ak mom damay japp na sax bi alquran da wa allama adama al asma kullu dafa melni ism dafa melni kon moom mi ñu meññee dafa xam na lépp kon ñi ngi nuyu ñëpp li ma bëgg a tàmbalee tuuti itam loo xam ne conseil académique bi sax yëgaguñ ko mooy promotion ñaari promotion yi fi nekk dafa am ñaar ñuñ ko bëgg a tuddee kenn ki sëñ Mouhamadou Moustapha Fadilu la ki ci des Alaaji Baara nañ ma bàyyi ma expliquer li tax du Alaaji Baara mu sëñ Fadilu du sëñ Mouhamadou Moustapha doomu sëñ wante fii ba ñuy créer institut Al Azhar 1974 75 ñu bare dañu doon wax ne ecole dañu dañu doon séparer ñaari tur ñii ne école ñii ne daara daara moom pour man mooy ñi nga xam ne dañu defe ne ñooy ñi jëmul fu bare wala ñoom ñooy ñooy sëriñ wala ñoo xam ñooy kaw ko maax nu mu ko mën a tuddee école baat bi di trois ñu ne kon ñooñu ñoo ñoo ñoo féete kaw waaye ci biir daara yooyu tamit dafa amoon ay xaaj am na ñoo xam ne dañu defoon na daara mooy nga teg nit ci sa àlluwa rek wax ko wala nga toog tiim ab téere ñu bari ci ay ñoo xam ne sax boroomi daara lañu dañu ne woon lii nga xam ne moom la sëñ Murtada daa di def dafa mel ne dafa soppi seen yëf te sëñ Murtala doomi sëñ Tuubaa la def naa ne duñu duñu duñu duñu duñu duñu duñu duñu duñu duñu tañaxoo ñaar ñooñu kepp ñoo doon jël seeni doom diggante bi nekk àll bu rëy ñu di leen dugal ci oto di leen indi booba oto 404 yombul ñu di ci indi seeni doom ñoom ñii di ay njabootam sax waxuma leen ko ndax ñun lu ñuy def lu nekk dañ koy def ci niñ jàppe ne looloo ko tax a jóg bu ñu leen ko waxoon ñuy sonn di indi ndaje déedéet du loolu parce lu luñ mérité la ndax boobu man xam naa lu bari bari na ñoo xam ne nu wuñ woon sax tudd école bi doon donte doomi sëñ Tuubaa ko defoon te ñëpp a ngi fi won booba kon ñi bari woon na ñoo xam ne sax doon nañ ci boole leneen kon ñoom ñu bokk ci yëf yi ba noppi jëlee ko noonu loolu moo tax ñu di leen tudde ñaari promotion bi kon loolu waa kër njabootu sëñ Moustapha Fadul ak sëñ Baara ngeen xam ne du fa ngeen toll ci seen diggante ak sëñ Touba kooku benn appel mais mérite la yéen ko mérite loolu moo tax kon conseil académique maa ngi lañ koy soog yëgal ngeen baal ma nag ndax dafa am yoo xam ne euh, rek loolu lañ ci jublu kon bu ñu nuyoo kilifa yi fi nekk yépp xëy na danañ ko waxaat tuuti ci euh, langue bi ñu jànge fii waaye noonu rek lañ ko gis nag langue bi ñu fi jànge rek wax te itam ñëpp fi nekk moo tax ndax ñëpp a ngi fi nekk ñi xam ne xëy na dégguñu wolof wala dégguñu alpulaar wala dégguñu nàngam waaye làkk bi nga xam ne senegal yi dañ ko fi noonu nen loolu fi demee kon buñ ci waxee danañ dellu si ci li nga xam ne ñoom ñëpp ko bokk kon bu ñu nuyoo kilifa diini yi yi fi nekk yépp ñii di suñuy rakk tàmbale ko Cheikh Ahmad Badawi ak kilifa yi nga xam ne yépp duñu jërul lim bi day xaw a jafe suñu noppee dolli ci nag kilifa yi nga xam ne ñooy euh, le professeur Ahmad Abdou Sow mi nga xam ne moo fi teewal le ministre Moussa Baldé teewal fii ndax boppam mun ministre directeur de l'enseignement supérieur ni ngeen ko waxale ci biir jëf yi tamit lu yéeme la mooy professeur yi nga xam ne ñoom ñëpp ay professeur université te professeur université damay wax ne ñoom ñii kenn du leen influence léegi laa ko wax ne ko yéen ngeen jël milliard may ko nit moo leen gën ngeen favoriser ko ci xam-xam kenn du leen influence ci xam-xam luñ ci gis nag ba ñu ci dara kooku ni seen niveau moo toll foofu bu ñu yoroon milliard ngi leen may ma ko ak waaye kii di dafa tricher est-ce que mën ngeen ko valider duñ ko def ndax buñ ko defee duñ nelaw kon ñooñu lu ñu wax dañ ñuy soññ wax naa ko nekk am nit nit boo ko waxee lu niru neex te te bu dee nit day war a laxasaayewaat waaye bu mu defee ne moo toll noona kon ñoom seeni wax ca noonu dafa ñuy soññ waaye du ñu tax a ko yal na leen yàlla dimbale dimbale na leen sax ndax li ngeen am ba egg fii kooku mission la du lu yàlla di jox ñëpp xam-xam du jaaxaan li leen yàlla jox ci cërit ci at ci sunum réew mi ngeen yoon njàngale mi soxlawu leen milliard soxlawu leen ku leen tagg soxlawu leen ku leen ŋàññ loolu lépp seen yéen nekk ci am na lu ngeen xam loo xam ne foofa ngeen nekk loolu tamit moom rek wax rek ni al li ñuy wax ne al ulama warasatul anbiya yonent bi sallallahu alayhi sol moo ko wax yéen leen fi représenté am na ku ko junj léegi muy yow ak professeur Sankhare ak professeur kër Guèye di gërëm boobu ba di ko boole tamit professeur Moustapha Soxna wax ngeen ci qualité yu bare ñii ngeen ko gisee la damay wax ne ñoom ñoom ñi nga xam ne ay professeur mathématicien la dañoo mel ne dañoo nekk ci beneen monde te li ñu jàng du yëf du lu tuuti moom ñoom sànqare ñoom waaye nii mu mel fii mu dem muy école normale supérieure moom moo fi kilifa ga kon déplacement ak ñoom ñii seen déplacement ay caaxaan influence du ko def alal du ko def daraja du ko def kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen dalal ngeen jotoon na ministre de la l'enseignement supérieur moom itam mu joxoon na kilifa muy président de la di nuyu bu baax rek recteur université Anta Diop Amadou Ali Mbaye moom itam ci ubbikoom ndax dem nañ fa waaye moom itam euh, nit ku am solo la ci ubbiku ndax université Anta Diop bokk na ci def naa ci université yi gën a raw ci àdduna bi kon bala ñuy dem bay siñeenteeg nit day fekk ñu xam ko ñu xam te dara am na ñoo xam ne du ñu làmbatu kon ñu ngi leen di sant tamit ci encouragement boobu di gërëm bu baax ki nga xam ne moom itam di nuyu bu baax Babacar sàmm moo xam ne moo yor jàngale école yi ak coranique yi ci ministre de l' éducation nationale nga nuyu ñi tamit ministre de l' éducation nationale ak Ousmane Ba moom itam moo xam njàngaleem arab mi ci ci ministre de l'éducation nationale ñu ngi koy nuyu bu baax di ko dalal euh, di nuyu tamit al azar tàmbalee ko ci sëñ Saliou mi nga xam ne moo nekk ci kanam moo ko jiite ak mboolem mudara yi directeur yi mu àndal ak ak ak euh, personnelu ñi nga xam ne ñëpp ñooy al azar di nuyu bu baax moom ma du Ngom moom mooy secrétaire mooy secrétaire général ci inspection bi Euh, di nuyu bu baax ak di dalal nag ñépp defe naa lim ngeen ko di ambassadeur de sec di koo xam ne ku am solo la ci diplomatie Sénégal conseil de sécurité moom moo fexe bañ am fa siège te lu ne yàgg lañ ko ci xeex mu nekk ci dëkk dëkk yi gën a am solo ci diplomatie ci Sénégal yépp dem na fa waaye di nit ku simple di nit ku baax euh, gis ñu dégg nañ génnuñu sëñ Ahmad Badawi ni ñu ko waxee di ko gërëm bu baax ci teewaayam ndax barabam la sëñ Cheikh Aliou Mbacke tamit ni ñu koy gërëm bu baax moom it tamit di ko nuyu ndax waxtu wu ne rek moo ko sëñ Moustapha Lakram dañ nuy soññ guddeeg bëccëg di gërëm bu baax euh, sant di nuyu euh, sëñ si di Mbàkke defe naa moo ànd ak waa eslu tarxeew ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen dalal ak sëñ Moxtaar Kunta bëggu moon dugg nag ci di lim ndax bindoon nañ ko waaye kuñ ci tudd ci bar ci lii ñu xam ne ñun fii ku fi xas ñëw rek am nga fi sa place kon ñu ngi gërëm kilifa yi fi ñëw yépp euh, kon ñu nuy xale yi bisimilah rahmaani rahim ginnaaw xas nañ wax euh, ñépp kon mën nañu tàmbali rek ci li ñu ci bëgg a wax ñi fi teew ñépp kon marhaban bikum ala hudurikum lil musharakati ma ana fi hada al hafl li takrim abnaina hamalat shahadat al lisans li dufati thaniya fi al ulum diniya wal wal العلوم wal والكهروميكانيكية والزراعة والرأي وتكنولوجيا إدارة المعلومات والأغذية والزراعة فهذه النتيجة مشارك للشعب السنغالي وللإسلام لأن جامعة الشيخ أحمد بامبا تسعى لخلق إنسان متكامل ومواطن صالح منتج وتخريج أجيال مستقلة بهويتها الشخصية وثقافات لا شرقية ولا غربية ولهذه المبادئ نحاول دائما وضع برامج تربوية متوازنة تجمع بين العلم والدين للاستفادة بالقديم الصالح والجديد النافع ومحاولة الإبداع في الفهم والتفكير والاعتماد على النفس والتوكل على الله لمواجهة التداخل الثقافي الذي يسبب لكثير من أبنائنا صعوبات في وضع الفرق بين ما هي قيمة ثقافية أو حضارية أو بداوة وما هي خيمة إسلامية رفيعة صحيح كما قال العميد نحترم لكل الآراء والمعتقدات والانتماءات ولكن منهج الجامعة يتقيد بالسنة المطهرة والتصوف الصافي ولذلك ندين أي تطرف في الترقية والحزبية داخل الحرم الجامعي أه، أعتذر لأني رأيت يعني بعثة الأزهر الشريف نشكركم على حضوركم أنا منذ أوائل السبعينات كنت حاضر أعرف كابت مشقات كبيرة ونقول دائما أن المصريين بكل ما فيهم من الشجاعة كانوا معنا في في الأول في الوقت الأول منذ النصر بداية الأزهار نشكركم ونرحب بكم وأنتم في بلدكم وفي بيتكم بارك الله فيكم li ma ci tënk tuuti rek ngir ngir ni ma ko waxe woon rek la kon ñu ngi wanni jamii at-talaba alladina najahu ala juhadihim wa narju min allahi lahum at-tawfiq liñ ci wax bariwul niñ ko waxee woon rek la mënoon naa ñàkk sax waaye dañu ko nodde rek tuuti ndax liñ waxe lépp barab bi la ñu ngi nuyu bu baax kilifa yi fi nekk yépp di ndokkeel xale yi di nuyu doyen de la faculté Abdourahmane Lo ak mboolem professeurs yi nga xam ne ñoo fi nekk ak administration bi monsieur le directeur général ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la di wax ne ak euh, lépp lum ci def wax naa leen ne ñoom kenn du leen géttan seen xam-xam mayu leen ko seen honnêteté mayu leen ko bu doon alal rek ak ak ŋaat-ŋaat rek yooyu yëngalu leen ñoom moo tax lu mu def ci ñun wala mu wax ko du influence tax mu def ko ci ñun du dañ koo neexal moo ko tànnal boppam di ko defal boppam waaye nag loolu responsabilité la responsabilité nag du ñëpp ko mën a attan moo tax ñu mel ni ñoom ay ay ay ay ay ay missionnaire lañu dafa am loo xam ne kiñ koy teg yonente yi sax yàlla daf ko daan tànn ah la mu ay sa yejom risalati daawul jàpp sam jëm benn mbusoo bi rek daal di koy def yonent wala ku sant ndaw déedéet da koy tànn ca base ba kon ñoom ñii nga xam ne ñoom lañ lim lépp nga xam ne kenn fekkante wu ci ak sa morom te ñun ku ci nekk ba ñu fay dem te xam na am nga noonu ñu doon xoole sax parce que ñoom itam duñ jékki-jékki rek dugg ci nit am na ñoo xam ne sax xawoon nañoo ci tuuti ñu bàyyi leen nu itam néewuñu leen may nu dimbale ñu ci dara dañ leen a bàyyi lépp ñu mës a wax buñ ci waxee ñu jàngat ko buñ gisee ne loolu la ñu taxaw ca mais muy effort boo xam ne ñoo ñoom ñoo ñoo ko def ndax université yombul xam ngeen ne ba ñuy def lancement bi déggoon ngeen nam demee woon am na ñu ne woon mënul nekk démb rek laay wax ci réunion bu ma amoon nag waa Azhar yi man leen bi ñuy gas fii am na ñu ne woon seen ñi fiy jàng seeni i bàyyi juddoogul mais fi mu ne am na fi ñu fi liggéey bay dundal ay bàyyi jaamu. te loolu lépp matagul fukki at muy loo xam ne bariwul ci ñoom ñii xam te ay universitaire xam nañu ñi ko waxoon it xëy na xam rek a tax ñu wax ko waaye waxewuñ ko woon mer jàpp ma ne loolu la parce que borom xam-xam nañu wante damay wax ne yonent yi ñëpp xam ngeen ne cent 313 ñoo ci feeñ wala ñoom ñoom lañ ci ñoo ñoo ci gënal si mais bari nañu wante yàlla dafa wax ne yonante bi ñeent ñoo ci am détermination ñeent mu ne ko defal na ñoom fas biir kama sabaru ulul azmi est-ce que moom kon ca la bokkoon déta li ca biir ci ci détermination asma boobu moo tax may wax ne am na ci loolu sax duma ci eggante mais li yàlla wax aadama wala qad ahidna ila aadama xam la fa nasiya walam najid lahu azman defe naa ne baat boobu ku jël ci sociologie war ngaa xam ne lépp ngi ci biir ci nit parce que bari na xam ne amuñu moo tax nag ma ne ñun lii ñu def ak ànd ko ak ñi nga xam ne ñoo nekk ak ñun ñuy muñ kët ndax euh, damay wax ne sëriñ ak jàngalekat ak sëriñ sax laay doon waxeet fa laa yamoon responsabilité la mais nekkul pouvoir jàngalekat nekkul pouvoir wante responsabilité la responsabilité boobu nag du ñëpp a ko xam euh, kon lii nga xam ne moom la añ ci résultat te ñiñ ci ndokkeel sunu réew ñëpp ndax lislaam a ko moom ndax jàmmeetu Cheikh Ahmadou Bamba dafa jóg ne dafa jéem a jéem a wax na ko def naa am na ko ko junj léegi ci 1978 ñun duñu wàll yu duñu xëy na seytaane duñ ko doon moom mais wàll yi moom duñ ko moom wante bi ñuy bi école Kaolack la woon def naa ay 79 78 te la damaa waxoon ne la budda min takwini jilin jadid yaqut bil aql wa diin waaw wala yaaqutu ala kathirin min altaqalid wal aadaat ba pare ñu am ay ak jàngukaay yoo xam ne du jàngukaayu toppandoo maanaam madaris ilmiya du du front xeexukaay du front dàbbasante du loo xam ne moo tax damay wax ne ñun toujours ku ñëw fii danga nga naan lu tax yëguñu ko démb rek am na kilifa bu mu jëm ma ne ko ñun duñ publicité mais dañuy informer parce que ki xam sa innama yastajibu lazina yasmauna yàlla def ne ki lay dégg mooy ki ngay ki ngay woo mu jël wuy daf lay dégg ku fi ñëw te xam boo ñëwee yaay xamal sa bopp jarul ñu naan la lii la ak lii la te borom yi xam-xam nag boo leen di won bàyyi leen ak seen bopp jarul di leen falax falaxee ndax boo leen leen mën a wax xam nañu kon ñun dañoo jàppoon ne rek fii buñ fii buñ lii buñ ko sosee dafa war a dindi dafa war a wutal dafa war a carrière ay nit ñoo xam ne duutuñu ne ay naar lañu ñu ne ay tubaab lañu duutuñu ne ay kaw kaw lañu kaw kaw du ca génn ku dëkk ci àll mooy ku defe ne àgg nga te départagoo bu ko defee ñun duñ karee ñu mel noonu moo tax ñu jéem a fexe ba tëral programme boo xam ne bu éducatif la boo xam ne ku ci jóge defe naa wax nga ko léegi professeur bi nga jaaree Bambey ñooñu waxuñu leen loolu de pour jàng étudiant ña fa nekk di jàng bay xalaat loolu jàngalu lañ ko mais jàngal nañ leen diine ak ngor ak i valeur ñun nag dañoo jàpp ne. Euh, booy def ni ko junj nañ ko léegi fexe ba jël ci jariñu la la weesu woon te baax ak lu bees li lu ne nga fexe ba am ko bul ne lële yàgg na bul ne lii bees la fexe itam bay jéem a demal sa bopp maanaam di jéem a xalaat di jéem a créer parce que loolu mooy intellectuel intellectuel du diplôme yi rek diplôme dalay won teg la ci yoon bi mais boo fa ne tekk rek kooku nag jaratul sax nga jàng mais li lay li lay may nga mën a ubbi ko mën a xalaat loolu moo lay moo lay yóbbu ci ñun wan la këyit ne la bii këyit am nga ko yéen jàpp toll leen foofu ngeen toll fi ne demagu leen fenn dañ leen a wan ne léegi kat nit ngeen na ngay def ba nite nag yaa koy lijjanti sa bopp kon bu leen arrêté fii wax na ko léegi ndax bu njëkk boo amee certificat ñu defee ne lu ne nga boo boo boo boo boo nekkee ci sax defe naa ñoom professeur am na ak professeur gars xam nañ ne am na temps yoo xam ne boo demee ci bureau sax boo lakkul tubaab duñ la xool ngay lakk booy ba nga jaxase sax mel na man jaxase say tubaab sax bu ko defee ñu respecté la wala nga sol costume boo xam ne cravate ba sax du baax léeg-léeg nga si costume boo xam ne Cheikh Mbacke ñoom ñi léeg-léeg nga sa costume day defe na ñun xam waaye da ngay cravate ba rek ngay xam ne kii du costume kat <laughs> waaw cravate boo xam ne da ngay xam ne kii boo demee fëgg jaay la sax ko defee nag mu naat ñi <laughs> wala west nag boo xam ne day lax loolu mooy tax waaye loo ca mënoon a def boo demee ñu ñu ñu ñu ñu gàttandu la waaye boo demee sol sa xaftaan ne salaamaaleykum amuloo place foofu mais loolu lépp dañ na léegi ñii gis nga leen nii kon loolu mooy delloosi sa bopp ndax araab walla tubaab culture la waaw culture la bokkut ak xam-xam bokkul ak diine aada rek la moo tax xale yi fii ñu ne leen bu ngeen fi duggee yu bari mag ñi fi nekk li ñu fiy dox liñ li ñu gëm ñun mooy li fi mag ñi parce que ñoo nu gën a dégg diine kon li ñu jaar yoon wañ jaar ba egg fi ñu egg jàpp ne ñoonu dimbale def mission boo xam ne yonent yu bari mënuñu ko defuñu ko ndax bu yàlla tànnee ci ñenn yonent ñeenti nit ci ay téeméeri kii wala junni ne ñooñu ñoo ci ñoo ci ñoo ñoo ci ñoo ci am am détermination détermination day baat bu xóot nag kon yëf yi yombul kon sunu mag ñi nga xam ne ñoo dem volontaire du ñu ay yónnante yoo xam dañ leen jox ordre de mission wala ñu def leen ñu décréter leen ñu volontaire seen bopp ba mën a jubbante nit teg ko ci yoon wu jub te duñ ko sonal duñ ko dara dërëjee duñ jël jaasi duñ dëgg nangam nangam te gëm-gëm du du lu sérieux la parce que même ñi nga xam dañ daan xeex di guerre sax ci la nafiq yi ëpp ndax koo tam ak jaasi wala fetal ne ko damay da ngay gëm wala ma rey la mu ne la gëm naa gëm kan moo mën a contrôler gëm yow mi ko yow mi ko def yaa xam ak yàlla mi ngi xam ne moom nga ne moom nga ko def moo tax fii dañoo tënku ci këri diine yi fi nekk ñu ngi baax suñu kunta ñu ngi lay bu baax këri diine yi fi nekk tijaani xaadir kunti loolu ñoom ñoo fi ñoo ñooy fii seen barab la parce que bu fekkee lañ li ñu soxla ci diine mooy valeur yi ñoom ñoo ko incarné ba ñun foofu la ñuy basé foofu la ñuy jàng nañu diine comme tout le monde mais bu ñu neexee ñu interprété mënuñu neex te gis nañ leen ñu jàngati diine am nañu problème bu baax mais boo xoolee seen référence gis na ñoom nii la ñu doon doxee nii la ñuy waxee rek da ngay daal di gëm te dootoo sonn loolu moo tax ñooñu ñoo ku lu dul loon nag nañ ñu dimbale rek ku ne nag boo génnee sañ nga gëm loo bëgg a gëm waaye nag nay nekk diine moom ku fi jógee gëw ma ne sax ñi fi jógee nekkoon ci yeneen bu ñëwee ba gis ne diine nii la amatuñ problème parce que lu ci dañu kii rek dañ leen di dañoo dañoo dañoo dañ dañ dañ dañoo nekk ci loolu rek waaye taxul sax ñu xam lan la dëgg-dëgg euh, moo tax lépp loo xam ne dafay niru ak extrémisme maanaam tataruf dugal ci lu ci bokkul wala nga jàdd ci mbooy gi loolu ñun dañ koy interdit parce que du defar nit defar nit da nga koy defar mu am ay valeur xam lan xam ne mooy nit boo dee làkk naar arab nga làkk ko parce que làng la rek comme séeréer rek saraxule alxuraan gi ñëw nag di diine teñ def ko ci làkk boo xam ne moom la nga xool la ca nekk ca biir loolu moo nu intéressé ci wax bu dee tubaab bi itam nga am soxla ci moom wala nga bëgg caa jànge loo xam ne lii nga ko mën a jànge loolu rek lañ ci duggee bu dee leneen ak leneen leneen loolu la ñu duggee ci làng moo tax xale yi ñu ne leen jàng leen ba xam lu ngeen lu ngeen fu ngeen bëgg fu ngeen bëgg a waxal ndax man ma ta'allama lughata qawmin amene makrom loolu hadiis la bu ko defee yéen ñi nga xam ne da ngeen a am ay dangeen am ay lijaasat fii na nii eh, muy lisance wax naa leen ko xam leen ne da ngeen di soog a tàmbali am ngeen chance bu nag ndax bari na ña daan jàng ba am certificat li ñuy daj lañu doon daj yéen du ngeen ko daj ba jàng ba am licence sax wala wala master yombul woon kon tamit ay ndaw ngeen am ngeen moye yu bare lépp a ngi fi te ñun li taxoon ñu dugg ci sensé système arabe li daan arabisant li ñu daan wax booba dëkk yi nga xam ne ñoo ñoom la ñuy yóbbu suñu étudiants yi ñoom ñi ñoo ko fi yóbbu mooy ay Égypte ak yooyu damay wax Azhar ne daara moderne la Fatimi yi yoon ñoo ko indi woon parce que amoon nañ problème contentieux ak wahhabiste ak yooyu affaire yooyu beneen affaire la histoire nag léeg-léeg da nga koy déformer su ko soo ko deful rek du baax duñ ko déformer mais mën nga ca bañ a waxante kon loo xam ne boo ko déformer woon doo ko mën a wax kon parce que ku ne diplôme boko ni nit ki ne am nga diplôme nga ne ko diplôme bi lii la ak laal koku nit du ko def parce que diplôme koku ko def da nga jang kon da ngay respecter diplôme bi kon respecter nañ diplôme yoy yep wante nit ñu fiñ ñu fiñ ñu yamalé won moy yow da nga mara a rek bo ñëw ab señ dara di jangalé wala nga dem di di waaraate xalé yi tay man ñoo parce que nee naa leen wax naa ko doctor Anne defe naa nee naa ko bu ngeen di waaree di leen ko def scientifique waaw bu leen waaree rek Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud d'accord baax na mais wax leen mu ne ma ci la ma waxee ne ma moom subhaanallati asra bi abdi laylan mi ngi doon calculer ma ne voilà def naa ne ñoom docteur euh, professeur Sankhare mathématicien yi mu ne calcul di calcul ba xam distance bi. yonent bi war a def nga xam ne kon boo newoon asra bi abdullahi lan rek demoon na jàkk mais bu la neexee nga ne lu tax fu mu ko defee te loolu yonent bi amoon na ci problème parce que doon nañ ko laaj fan nga jaar diggante ba lu fa nekk ak yooyu bu doon léegi nag da ngay calcul bi ñaata lañ ko war a vol ñaata nangam loo ci nekkante di indi baati nag saa yi rek yëpp loolu yéen di leen di leen di leen xoolee di leen jàngee noonu di leen di leen def lépp lu ngeen di jàng muy diine li ci diine dugal leen ci scientifique di ko xalaat di ko génne noonu di bañ a nettali rek baax na waaye nettali kese tamit du du taxul muy xam jàngat la wax nga ko léegi wa maa ya'lamu ta'wiilahu illallah ba mu noppee mu ne wa raasixuuna mubtada la defe naa fi la yàqoon kooku mais loolu du loolu lépp kon may na la ngay ngay lijjanti di xalaat alxuraan loolu la kon yéen bu ngeen dee def seen seen seen seen comme noonu xale bi wax rek mu ngi doon di jàng agriculture mu ne lii bu ko defee dana am problème kooku moo ko xalaatal boppam ne jàngaluñ ko ko ca te kii ba dañ ko jàngal rek ne ko war ngaa baax war ngaa honnête def lii bay ko defe ko nii mais nam ko analyser la boppam moo ko defal boppam loolu mooy xam-xam mooy intellectuel intellectuel ak diplôme dafa bokkul li ñuy bañ nag mooy li may wax kaw kaw mooy diplôme ba këyit la nga defe na àgg nga te départ ko loolu mooy kaw kaw kaw kaw dëkk ci àll bi ñun ñëpp nit àll lañ waaye waxtu wu ne nga defe na yaa nga ca kaw te jóg àgg nga fa nga ñëpp jëm fa nga ñëpp doon daw da ko dàq àgg nga fa tey départ goloo sax yàlla na ci yàlla musal kon xale yi ngeen góor góorlu bu baax jàng ñii kat caaxaan yëkkatiwu leen amuñu temps li nekk ci ay diplôme li nekk ci lu bari nekk ci seen bopp kooku xam ngeen ne li tax ñu jóg yéen itam na ngeen ko sàmm bu baax kilifa yi fi nekk yépp ngeen xam ne lii ñun ñépp ko bokk maa ngi nettali démb lool duma duma jatt duma ca netal nak ci football ba mom duma jaar waye dal ruba ramiyatin min ghairi ramin dal nitama ko waxon te bit buma duggal rek tam def na mën mu ko def munema amna am ko jam te do sanni kat ma set metti lol nak la nga don liw ak yoyep day dañ parce que da nga dalaa wàcc wàcce waaye loolu boo ko gis daf lay soññ ci nit barit na loo xam ne si ne bari na loo loo xam ne saa bu ñu lay wax lu neex sax Cheikh mii mi ngi wax de waaye damay defe na sax daf may jay bu te bu ñu wéetee sax ma ne ko bu ma ko déggati waaw da nga jógee mel ne lépp luñ la ne yaa ko def sax da nga ah dafa ma rëcc rek parce que loolu mooy tax nga avancé waaye fugg fugg ak suuf su ak dajax dajax kooku jëmul fenn mu mel ne kon yéen ñi li nga xam ne mooy faculté yi ñi nga xam ne moom diplôme yi ñu leen di bëgg a jox te lim ngeen ko léegi mu jëm ci mbay mu jëm ci électromécanique wala mécanique ak lu mu ci mën doon ak élevage lolu yep fi ngeen ko jàng njàng bolé ko jàngu diiné ñong leen di sante bu baax ndax li ngeen nu may ngeen fexé ba sunu diplôme yep dañ ci dañ ci duggal nga xamné ki nitu diiné la man na dem ci jàkka ja waaraate comme tout le monde bu fekkee waaraate te waaraate bobu sax mo gëna woor nak nag nga am jang bu baax nek nek nek scientifique dafa gëna a parce que ki ngay waxal dana xam li ngay wax waye bo yame ci ñom rek Buxaari yooyu Ibnu Abbas gaa yooyu xam ne da leen di dégg rek xamoo xam na ñoo xam ne sax fekk ñu fi yonent bi bu ko defee nag yooyu nag ngeen yéen ngeen góor góorlu ci bu baax xam bu baax jàng bu baax ñun loolu lañu ñooñu la ñu bëggoon ngeen ñooñu ñooñu lañu bëgg am te bañ a déglu nag euh, xalaat yi nga xam ne ñi koy xalaat sax xamuñu li ñuy xalaat lañuy wax rek waaw ah. ah, kon daal ñu ngi gërëm ñi fi nekk ñëpp nag defe naa lim ngeen leen ndax suñ xasee dugg ci di lim rek waaye ñi fi ñëw ñëpp nañ xam ne noog ñoo ma fi yam ñu bokkal sëñ bi ñi bokkal liggéey bi ak ak kilifa yi fi nekk yëpp ñu xam ne barab bi mu ngi leen di dalal te yal na yàlla def jàmm. te lii nga xam ne ñii yéen ñi jàngit continuer leen continuer leen gën a bokk ndax boole wuñ nu woon ci leneen lu dul rek ustaas la ustaas sax du baatu arab kon loolu ngeen fexe ba nekk nit ay nit xam lépp fu ngeen nekk ku leen bëgg a waar ci diine bëgg leen a farax falaxee yàlla nee na fi ngeen wax ko yàlla ak yonente beeg dugg dugg naag lu ne fu mu bëgg a jaar rek ngeen jaar ca ginnaawam bale ko nag analyser ko ko bu baax loolu mooy génération bii nga xam ne moom ngeen war a doon lu ko mooy kat yëf yi dana jaxasoo ndax fii nu toll kat kenn xamatul lan la fan doon toll diine ji matériel mag ñi sax liñ defoon ñu ngi koy bëgg a yàq ndax lu luñ dugg dugal ci dugal ci matériel te loolu taxu leen woon jóg dem nañ ba lu ñuy def sax bu ñuy exposé sax nit ku baax ci matériel lañ ci mooy mooy mujj ga ca lay mujj ca lay daanoo loolu bu leen ci dugg yéen na ngeen na ngeen garder seen ay valeur te xam ne nit ñu baax ñooñu kat boo leen jaayee tamit Euh, kenn du leen jënd la nga cay jëlee nag posen la boo xam ne ci yow rek lay mujj dellu kon bu leen dugg ci yooyu di leen wax di leen euh, te xam ne loolu itam surtout jigéen ñi yéen xale yi jigéen ñi tamit ngeen góorgóorlu ndax lu bari tamit dañ koy koy am jafe-jafe ndax tollu fii jàng te jàmbaar lañu nag waaw gis naa ne not yu bare bare bare wala buñ ko gisee xale yu jigéen yi dañ ci bare lool wala mu ñu ëpp sax kon na ngeen xam seen bopp waaw na ngeen respecté seen bopp bu leen kenn foyee bu leen kenn yab su ngeen ko defee day ci kanam ah professeur mbaa duñ mujj nangu lu bari ci réew mi te pourtant dañuy ay jàmbaar lañu yoo xam ne day lu bari day mën nañ ko yor de te problème bi ci am daanaka post yu baree bare ba sax ña fa nekk ci ñoom ah loolu ñoo gën a wóor daal <laughs> daal kon yéen itam ngeen téye seen bopp nag bu leen kenn yab bu leen kenn falax falaxee ku ci bëgg sëy demal ba war ko ba bëggal ko sa bopp waaye buñ la ci forcé bu len ci wajur ji na ngeen len bay jang ndax ku ci jang ba noppi lepp lo doon man ci nga koy gën man te da koy manal yepp ko kon na ngeen taxaw ba xali goor yi tam bu len yakamti bu len yakamti na nek ro gu waaxoo ma bu len ci dugg yéen xale ndaw du yakamti xamna sax yeen wax la rek waye fogu meuna yeen yéen xalaat loolu du ngeen ci waaye nag dëkk bale bu ngeen fa demee am ngeen diplôme bi da ngeen daal di liggéey bu mu tax ngeen bàyyi continuer leen tar garde seen seen seen bopp monsieur le préfet tamit ñu ngi lay gërëm bu baax sous préfet nga nuyul ñu préfet ak gouverneur ak ministre de l'intérieur ba ca président yow laa yaa leen fi teewal fii noonu liñ ko waxee rek la bari na ñoo xam ne waaye nag boroom xam-xam yu bari xam nañ fi ndax loolu ma waxoon sànq rek moy duñu publicité mais dañuy informer informer nak bo way def dang koy def ki nga xamne boko waxe mu gis boko deugé mu dégg kon ñi lool rek mo fi nekk monsieur le professeur monsieur le directeur général ñi ngi leen di gërëm bu baaxa baaxa baax di ñaan yalla yalla na leen yalla sàmm kep ku fi ñew muy sunu rakki sunu kilifa diine yi fi nekk yépp ngeen xam man ak yeen ñoo ci yam rek li lepp ndimbalu yalla la rek la kon nak ñi ngi sant bu baax ngeen baal ñu ak السلام عليكم ورحمة الله وبركاته